شعبان ويرو يرنتو بنا رمضان ويرو خيط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرى cliquer si abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am bul fàttee cliquer si abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko ñëk am am ak ñaar fukkel ga ak ñaar ku ci julli ñaari rakkaa bu ci né fatiha ak sabbihi isma ak ina ansalnahu ak huwa lahu ak falaqi ak nasi lu ci né ñetti yoon yalla dana ko tabaxal ci aljana juroom ñaar fukki dëkk yo xam bu ci ne junni jëndi dana ca nekk njëndi lu nekk junniy néeg dana ca nekk yoo xam ne wurus ak xaalis lay doon néeg bu ci nekk junniy lal dana ca nekk lal bu ci nekk junniy soxna nekk ca قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية